asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit yi bokki taalibe yi kuréelu karavaanu Mayumba nooy ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu tiwir boo leen gisee toogaay bii nu toog ak taawam bii di alaaji maam Cerno di ñaan Serigne Touba lii nu jëm muy caravane Mayumba at mu jot nu def ko ngir topp lee trace de ma du Bamba. boo déggee Serigne mu Ka nam ko waxee rek nga xam ni kon mu yi yellu na nu dem toppaat loola ba xam loola nag ci leen jëm ñu fas yéene nag ren ji marraine bi nga xamante ne mooy marraine à vie mooy jàmbaari Serigne Mountakha ji di soxna Bali moom Serigne Souhaïbou ñu daal di jël nag kenn koo xam ni day kenn ci yoon wi di jàmbaar jëfam yoonu murit miin ko muy sëriñ Abdoulaye Sylla bu Ecotra ak kan ñaar ñi nga xam ne ña nga Gabon sëñ Pape caam di jàmbaar ak sëñ seydu saar ñaar ñooñu nga xamante ne kenn dootul wax caravane bi te tuddoo leen damay bay ñi nga xam ne ñoom la ñuy hommagé di leen ci fàttaliku buñ ci tuddee suñu jàmbaar ja soxna May bintu Xaadim Rasul soxna Baali di ziar bu baax njabootam dañuy bàyyeeg Serigne Omar Ndiaye ana lan nga ñuy indil ci hommage bis boobu itam nag ñu ci fàttaliku suñu jàmbaar ja Serigne Fallilou soxna maam jaara bu sa soxna am si tedd sa yal na yàlla yokk leeram di te fàttaliku bu baax a baax nag Serigne Khalil Mbacké mu Cheikh Mamadou Fadal di fa fàttaliku nag ah ki nga xamante ni nag mooy Alaaji Madoun Gueye moo fa jëkk a nekk président daayira Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mu mag teg ko fa di ko fàttaliku nag ah sëñ Galassine Ndidim mi nga xamante ni moom itam ñëw na fa nekk soxna jaara di waaye nag di ci fàttaliku itam sunu soxna su baax ku tedd ndey binte sàmb mi nga xamante ni moo nekk soxna su baddo di ko fàttaliku baax a baax di ci fàttaliku itam imaam bu tedd itam nag muy imaam daaxa di alpulaar boo xamante ni ñoom itam bokk ci liggéey ba ak alpulaar yi nga xamante ni ñoo fa nekk di liggéey yëpp mu nekk imaam ci Petit Paris ànd ko magam ju baax di di sëñ Omar Sy ñooñu ñoo ngi leen di fàttaliku ci bis bi alaaji jabel mbay itam nga xamante ni moom taalibe cheikh la waaye lu nu mës woote ci bis bi ak fu sëñ Fallou bu sa mës a woote teew na fa ànd ñun liggéey bi ko kooko tam ñoo ngi ko ci fàttaliku del ni ci ñaanal bu baax a baax yàlla na yéen yàlla yërëm ci yeexal journée Baye Fall yi nga xamante ne dañ koy def ca Mayumba jagleel ko Cheikh Ibrahima Fall noo ko duppee Serigne Cheikh Khadim Fall jàmbaar ji nga xam ni mooy l'homme di premier mai moom itam muy waaj ak baay Fall yëpp ñangay ngay waaj. waa kay ñoo ngi woo Serigne Khadim Gueye taalib bi Serigne Mountakha nekk ca Gàmbi di jàmbaar joo xam ne ku ne jëf gis jëfam ci yoonu murid Serigne Cheikh Mbengue Baye Fallou Mayoum yow laa jox kaddu gi ginnaaw bu ñu jëlee kaddu ndigal ak soññe yu bawoo ci xalifatoo am di tarixati muridi ñun waa Gabon gépp njiiti daayira yi ah, ci njiitu sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Abdourahmane mu maam no sëñ Sidi mbake ma nga xam ne moom sëñ Asfaale nekk fa ak ñun sëñ Jili Fall nekk fa ci bunt këru maam Cheikh Rafal ak président daayira ak jëwriñ ya fa nekk yëpp sëñ Massar Gueye ñoom sëñ Bëgg Saliou sëñ Baraka ak mboolem ñu nekk Gabon ak daayira soxna jaare ba fa ne ci njiitul soxna Oumy Thiam ñoom ñëpp ñu àndandoo ak ñun di ca woo ñëpp ci continent yëpp nag fépp fu nit ne xam ni Gabon am nga ca wàll ndax foofee la sëñ Tuubaa nekkoon di fa tawte foofee la sëñ Tuubaa nekkoon di nu yittewoo te liggéey ba nga xam liggéey na ko fa tey jii moom la ñuy jëriñoo fii ci Touba luy tedd nga ci àddina bépp it foofee la bawoo liggéey boobu nag ñi ngi ciy woo Euh, monsieur le maire Touba bi nga xam ne mooy sëriñ Abdoulaye Ka bëgg caa ànd ak moom ndax kenn ku ne xam ne naturellement ñoom ñooy suñuy premier partenaire fii ci Sénégal ci Touba nekkal fi xalifa bi. di ca woo tamit ambassadeur Sénégal ba nga xam ne moo nekk Gabon muy Seydina Omar Thiaw ak loo mi nga xam ni moom mooy consul ba te doon suñu mbakkum taalibe ànd ak ñun ci liggéey bi diñ ci jàppale ah ñu ngi soññee nag ànd ko nag ak commission ba nga xam ne moo nekk ca Gabon taawu liggéey bi muy ñoom sëñ Badara Seen sëñ Fallou Diop ñoom sëñ Xaasim Sarr ak mbooloo moom nga xam ñu yaatu la ñoom sëñ Ablaye ak ñëpp ñu ànd ko boobu nag euh, ci ci jàppaleeg président Oligui Nguema ma nga xam ni moom la yàlla teg ci bopp réewum Gabon ànd ko ak ministre affaires étrangères bi nga xam ne moo doonoon ambassadeur u Gabon fii ci Sénégal loolee ñu fas yéene ànd koog moom nag ñi ngi ciy tàllal loxo son excellence euh, monsieur Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne mooy njiitu réewum Sénégal ak président Sonko bi nga xam ni mooy premier ministre am kon daal ñu ngi ciy woo mboolem ñu nekk Sénégal euh, te aju ci gouvernement bi ak sëriñ si kilifa diine ak tarixa yi ñëpp ñu ngi leen ciy woo ñu ànd ak ñun dem Gabon. waaw euh, képp koo xamante ni bëgg ngaa dem ci caravane bi maanaam euh, defar nañ paquet boo xamante ni ñu ngi ko defee mille huit cent cinquante mille francs ci ap lim ci xaalis waaye li nga xam ne moom lañu ñu ci ay kayit mooy sa photocopie passeport.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 war faa dem ba le 21. kon képp koo xamante ne nii annonce baa ngi nii am na numéro téléphone yoo xam ne moo affiché na nga ci woote te prépare ko bu baax a baax. kon Serigne Cheikhouna Bousso kaddu gi yow lañ koy jox. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñu ñëw nag tey jii di leen fàttali wàccaayu karawaan bi nga xam ne. Euh, Serigne falilu buso moo ko sosoon ca Gabon ngir lan. liggéeyal ci Serigne Touba ànd kook mbokk bi yi nga xam ne ñoo toog nii tey ñu gis leen ñoomit ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ngir lan jaar-jaari Serigne tubaa ci Mayomba ci Gabon moom la ñuy xeeñtu naa la fa nag ay procès yoo xam ne incha allah rabbi gannaaw bi ñu ci amee ndigalu mu Mountakha procès mooy lan juma daara ak kër Serigne Touba loolu lañ ñëwoon di leen ko fàttaliwaat mu nekk la 14 juillet bii ñëw incha allah rabbi bala la ñuy wax ci njabootu sëñ Fallilou gépp di mbooleem képp koo xam ne. Eh, njabootu seen tubaab gi yëpp ñu leen ci woo di ci woo njabootu Mbuso bi gi yëpp di ci woo askanu Mbàkke di ci woo mm, njabootu maam Cheikh ci woo mbooleem seex yi di ci woolee mbooleem dëkkandoo yi mbooleem wëlër yi mbooleem xarit yi ñu xam ne lii kat liggéey seen tubaab la boo xam ne eh, kenn ku nekk mën nga cee ñëw tàbbi ci liggéey seen tubaab sa kem kàttan ren nag incha allah rabbi ñu war a amal waxtaan bu am solo ci thème bu am solo boo xamee ne Serigne Touba nekk nekkoon mu jaddit ci ndéglu yorant bi sallallahu alayhi wa sallama di yeesal diine seekal bi di jeex ci ñaar fukki fan yi di ñëw ci weer tamxarit incha allah rabbi 1446. loolu mooy waxtaan wi nga xam ne sëñ Baye Dame Mbaye moo koy def ci olof français euh, ak anglais ak arabe ngir lan ñu yaatal liggéey bi ba mbooleem fu waay man nekk ci àdduna bi man caa jariñu ci ànd kook sëñ Fallou Bousso Tamba ak sëñ Ahmadou Mbacké salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ak fuñ fi mën a nekk. di am mbégte ci di fàttaliwaat liggéey bu Sëñ Tuubaa bu rëy muy liggéeyu karawaanu Maayom. muy liggéey boo xam ne liggéey boo am solo la. ñu di ko def nag ci ndigalal si Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne mm, yabal nañu ko ñu di ko def ànd koog mbooloo mi nga xam ne ñoo koy taxawee ñu nekk Gabon ak ñu nekk Sénégal yëpp. ku ne xam na ne. Euh, sëñ bi tukki bii mu tukki ci géej gi ku ne xam na am na dafa am lu bari lu mu lu muy lu muy fàttali yoon wi ndax bi muy tukki nee na bu fekkoonte ne tey weer la mbala biddiw bi muy ñibbisi ab jant la loolu nag de loo xam ne ku mënoo topp mbooroom da nga ko topp jeex tàkk topp mbooroom Sëñ Tuubaa yombul waaye nag lu bon bon la mu fa def fa mu fa jaar ci saayir ñu teg fa sunu tànk ngir di ko fàttali ko ngir ngir ngir di ko barkeeloo ci yoon wi loolu rek moo indi karawaan bi kon nag ñu ngi ci woo ñëpp rek buñ sañoon ànd koog murid yëpp na xam ne liggéey Sëñ Tuubaa te liggéey bu baax la buñ sañoon ànd koog taalibe yi buñ sañoon ànd koog mbokk yi rawatina kër Sëñ Tuubaa yëpp ak seexi Sëñ Tuubaa yëpp ak mboolem koo xamante ne ku bëgg lu baax la tane ci tane ci réew mi ak tariqa ba mën a bokk mbaa bokk ci ngóor gi mbaa leneen buñ sañoon ñëpp ñu ànd koog wuñ bàyyiwuñ kenn <laughs> jërëjëf خلا وسالك نار الخل لي